abi euh, sigil ndigaale li ñu bokk. sigil sa wàll. Thione Seck bu mag. nekkoon koo xam ne nii sa xarit la. lu ñépp xam Sénégal gépp àdduna gépp xam ko. tey jii nga ñàkk ku mel noonu abi lan nga yëg tey jii. xanaa métit. waaye boo amee métit ba pare da dellu nga sant yàlla te xam ne sunu borom mi ko def moo ko sañ. Mhm. kenn sañu ko ku dul moom ndaxte ci sunu borom la ñuy la a ah, ci moom la ñuy la ñuy dellu mm-hmm. yàlla na yeex mm-hmm. yàlla nañu yàlla may mu fekk ñu si jëf ju rafet ak taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la amiin waaye coon ñëpp ñoo ko ñoo ko ñàkk eh, man moom suma suma mag la woon mm-hmm. suma xarit la woon dafa am fenn xam ne daf ma fa am fu may lu am lu may am daal fu ma teg xam nga rek boo boo doo xam sax lan lay wax. Mm-hmm. du ma xaw sax lan lay wax. fent na way sax jagleel la la mën a jagleel la sax way boo xam te ne yow la ko way jagleel la ko. Mm-hmm. wallaay wallaay coono coono a beaucoup fait pour moi. Mm-hmm. il a beaucoup fait pour moi. di ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo am yërmande. yàlla na ko yërmande suñu borom fekk fa mu tëdd mu rëcc lu mu doon def ci àdduna bi yàlla mi nga xam ne moo mën a teeru jaamam ci aljana yu gën a mm-hmm. kawe na ko suñu borom teeru ci àdduna yu kawe yi yàlla na njabootam ji nga xam ne yàlla daf leen fi bàyyi yàlla na yàlla teg loxoom ci ñoom yàlla fay ko lépp li nga xamante ne lu baax la mu ko doon jëf yàlla. seen relation fan la soqe ko yaak moom seen diggante fan la soqe ko yow ak diggante bi lan moo ko indi. en fait diggante ak euh, sama diggante ak Thione Seck loolu dafa yàgg dafa di depuis depuis ma ma nekk xale. Mhm. naa naan ma daan def waaye di ko reprendre damay reprendre ay morceaux Thione Seck gëm naa ni que bu ma nekkee tey sax ni ñi ram ràññee ma ci ni ñuy way à quatre vingt pour cent ci Thione la parce que ay wayam dama ko daan reprendre. Mhm. reprendre morceaux yu Youssou Ndour yi. dama mhm. màggee moom bëgg ko rek te yàlla moom moo tax. nit da ngay gis yàlla ku mu la boole rek nga bëgg ko te yàlla tax. Mhm. donc nag ñu am relation yu yu bien yoo xamante ni macha allah mosu ko wàcc mosu koo ñaawal mosu ko am lenn loo xamante ni lu safaanoo la ak ni ma ko ni ma yàlla boole ak moom. Mhm. ci gàttal daal. Mhm. ah nit ñi ñëpp am nañ lu ñu naxare. li ñu yeewoo naxari na trop waaye encore une fois rek sunu borom moom moo sañ. ginnaaw yàlla moo sañ mhm. dañuy delloo yëpp ci loxo yàlla te ñaan yàlla sunu borom mu wàccee yërmande te teeru ko ci àjjana firdawsi te wane la ko sang bu tedd bi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jërëjëf